asalaamaaleykum waa Sénégal waa monde bi waa diaspora bi su ma waxee wax naa ñëpp waaye nag sama dëkkuwaay forum Sénégal forum Sénégal maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen bëggee di leen tiitaroo samay soppe samay am di jàmm samay xarit ak ñi ma bëgg ak diaspora bi ñëpp bàyyiwuma kenn di leen euh, def benn di wax benn affaire boo xam ni dafa xew ci jamono ji muy coronavirus. mooy coronavirus ay coronavirus ñoo ngi ñaan ci yàlla képp fu mu nekk dëkk bu mu nekk yàlla jële ko fa ndax ñun ay jullit lañ ay sénégalais lañu te ñan ñun lu baax lañu xam nuyoo lañu xam julli lañu xam suñu demee ba naan ñett ñeent du daje kon kat y a quelque chose lii nekkatul ay caaxaan lii nekkatul ay caaxaan vraiment nit ñi dañu war a jël seeni matuwaay ba mu mat sëkk sëkk sëkk jàppale ci ministre de la santé susuma waa Sénégal ak waa diaspora bi ndax affaire bi yemul Sénégal fépp la dafa wër monde bi dafa wër monde bi soo demee itali demoo France dem Suisse dem Angleterre dem Allemagne fépp la monde bépp bépp bépp bépp la kon nag nan ñaan yàlla yàlla jële ko fi yàlla mi ko indi mu jëlewaat ko fi bañ a dem ci benn dëkk bañ a des fenn fenn fenn ndax vraiment affaire bi daal te au sérieux man dama yaakaar ni affaire bi ay kii la ndek dafa dem ba à la dama gis dafa sérieux ndax su ma toogee se fii euh, New York gis ñu ne kenn du génn bigit yëpp tëj kenn liggéeyul kon nag yaa quelque chose li may ñaan sama mbokku sénégalais yi. Euh, muy faatu faatu bi muy moodu moodu bi ku la ci yónnee te yónnee ba tardé na nga ko comprendre ku la daa yónnee la mu la yónneewul yónneewu la ko na nga ko comprendre ndax kenn liggéeyul kenn liggéeyul diaspora bi yeeg moodu moodu yeeg faatu faatu yeeg kenn liggéeyul man nag fii ma nekk nii États-Unis gii ma nekk nii saaliin yi ñu doon entraîné sax dañ ko tëj saal yi ñu doon entraîné sax dañ tëj kon nag li may ñaan monde bi entier yi nañuy fagaru fagaru fagaru fagaru fagaru fagaru jot na fagaru jot na ndax lii dafa sérieux lii dafa sérieux lii du caaxaan de lii dafa sérieux ku ci raxasu da jël saabu raxas ba mu set wala nga wut say gants man de maa ngi samay gants yor maa ngi samay gaa maa ngi samay kii nu mu tuddati euh, loolu sama maska gis nga sama maa ngi sama masque hmm? gis nga fii nii rek la kese ak say gants li man daal li ma leen di ñaan ngir yàlla ak rasuuli leer muy sénégalais bi muy ñu nekk ci diaspora bi jël leen seen i matuwaay ndax lii dafa sérieux ndax lii xamul lan la xaw ma coronavirus ma corona vaax vraiment daal na fi gaaw jógee ndax sonal nañu lëjal nañu li kenn liggéeyatul dégg Sénégal damay toog di dund Sénégal ñu may envoyé ay vidéo ah mbo ñu tere ñu génn c'est normal gis nga alkaati bi at Macky li mu def c'est normal ndax lii dafay wàlle te dafa gaaw a wàlle jël leen seen matuwaay dafa gaaw a wàlle gis nga alkaati yi li ñuy def nii yéen la ñuy jàppale sénégalais yéen la ñuy jàppale te lu yemul sénégal ku ne toogal sa kër toogal sa kër ngir yàlla te yàlla tax ku ne toogal sa toogal sa kër ndax ñaar ak ñett lii dafa gaaw wàll lii du affaire u nuyoo nit nga wax nga mu wax sax seen ñaari tiblit ba dal ko wala dara sax wàll na la mu jaar fenn nga taxaw mu wax wàll na la ay waay ngir yàlla ak rasulillahi toog leen seen i kër te jàppale état bi jàppale seen bopp la état bi jàppale du pour boppam de yéen lay jàppale lii muy tax teel a dugg beeg teel a tëdd beeg yooyu yëpp yéen lay jàppale ndax lii dafa sérieux ñun dañoo bëgg daje ñun sénégalais ci boppam dañoo bëgg ñaar ñett ñeent taxaw moo tax lii nag sénégalais yi jël leen seen matuwaay di raxasu te bàyyi nuyoo bi ñun ay jullit lan nuyoo lan xam mbëkk lañu xam wax dëgg yàlla loolu lañu xam de ndax ñun ay sénégalais yi tubaarikàlla macha allah ñun. ñun dañoo nekk façon nit boo xamee ni vraiment amuñu fenn sens interdit fu nu neex dem fu nu neex jaar. comprendre nga léegi daal li ma leen di ñaan di leen raxasu di soli gant te nuyoo te xale yi ci biir kër sama mbokku mbëri xale yi ku ci jógee entrainement sangul ba set raxasul saabu sama xale yi nga xam ne nag waa géejaway nga xam ni xale yi sama ya dan maa yaakaar yàlla tax neen man maay monument géejaway te loolu yàllaa ko def li ma leen di ñaan sama rakk yi entraînement bi ñaq bi sóor leen ko soor leen ko ndax lii dafa nekk affaire bu sérée ku ci mën a toog sax wala entraîné contact bi arrêté leen ko ñaq yi baaxul toog dee leen physique ndax fii daal moom entraînement moom amatul moom du monde bépp lépp tëj na lépp tëj na lii dafa sérieux maa ngi leen di ñaan daal vraiment lii daal moom yàlla na ko fi yàlla teggi yàlla na ko fi yàlla teggi yàlla na ko fi yàlla teggi ndax vraiment billahi wallahi taala xaw ma coronavirus xaw ma corona va waaye daal moom sonal nañu état kenn liggéeyatul kenn liggéey sama fans yi sama soppe yi sama xarit yi diaspora bi ku nu yónneewul su yónnee ba yéex na nga comprendre affaire yi moo demee noonu ndax affaire dafa changé léegi affaire dafa changé kenn liggéeyatul li ma leen di ñaan ñaanal leen ñi nekk ci diaspora bi ñaanal leen ndax ñaan jot na kat ndax affaire changé na maa ngi di gërëm di leen sant moodu moodu yi faatu faatu yi sama soppe yi nekk ci diaspora bi bàyyiwuma kenn ah sama rakk daam mi nekk ci caméra bi maa ngi ziar ñëpp maa ngi ziar ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi leen di ziar ah bàyyiwuma kenn ndax xam nga man damaa bari soppe damaa bari ñoo xam ne ñoo ma doon xaar te nag am na yeneen yu ma war a wax fi mu ne loolu taxumaa jóg loolu fi ne jógaguma ci man maa ngi ci coronavirus bi ndax coronavirus bi man moo ma tiital moo ma tiital vraiment tiital na ma. tiital na ma trop trop yàlla na ko fi yàlla teggi yàlla ma koy fi yàlla na ko fi teggi war ndax ñun wax dëgg yàlla xamuñu lii liggéey lañu xam jaamu yàlla lañu xam maa ngi jégalu samay xarit samay am di jàmm ziar na waa Sénégal waa Géejawaay ah Géejawaay sama séef sama séef ay Géejawaay sama yàlla bu mu dal kenn waa yàlla bu mu dal kenn maa ngi ziar kontaan naa ci yéen diaspora yàlla bu mu dal kenn yàlla fi yàlla teggi daal ci kaw ci kanam. xool asalaamaaleykum waa àdduna. asalaamaaleykum waa Sénégal ah. man Omar Kane ñu gën ma xam ci Reug Reug waaw man maa bëgg ñëw waxtaan ak waa àdduna waxtaan ak samay supporters waaw di leen wax ne nag coronavirus bi lu am la waaw ministre de lu mu wax nañ ko jëfandikoo muy lan ñi fu ñuy dem nañuy raxasoog saabu ak ah, ak eau de javel ah ak madaar bi tamit baax na si waaw ak ak ak ñu wàññi tuuti ndaje mi tamit ndaje mi am nañ si solo ah ñu wàññi tamit génn bi. waaw lu man ta ñàkk ba mënta ñàkk tey ji booy génn takkal max waaw am na si solo bu baax a baax waaw di wax tamit waaw couvre de feu couvre bi couvre feu ah couvre maa ngi lancé appel tamit sama mbokki Sénégal yëpp ah di wax ne nag huit fu mu jotee nañ toog suñuy kër ndax ndax mooy sulu jàmm ñun ñëpp waaw ndax état moom moom lépp waaw bu jógee rek jóg na kon nañ toog suñu kër mooy suñu jàmm ñun ñëpp suñu wérgu yaram la suñu jàmm la waaw di lancer tamit appel benn appel boo xam ne tey jii muy sunu moodu moodu yi ñu ngi leen di ñaanal fu nekk yal na leen yàlla defal jàmm waaw defal leen jàmm waa Espagne États-Unis ah ñëpp foo waay si waaye nekk rek maa ngi lay ñaanal yal na yàlla defal jàmm musal la si feebar